fàtte ah, sëñ Xaadim laa àndal ànd sama sama rakk yëpp ànd sama jëwriñ yëpp ñu ci dañoo ñëwoon rek waaw waaw indi indi seen ndigal loo jëfe loo joxe kenn waruñu cee ëpp kenn waruñu cee man ndax li nu doon yéen a bu dul yéen Mbàkke sunu sunu ndong taq suuf lépp yéen ndigal li ngeen joxe moom la ñu woon nañu ñëw indi sunu barkeelu ñu dem ñëwaat na te ñaanal nu nu weesu ko lii nu fi indi xeeb nanu ko bu nu sañoon ci alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf waaw moom de ani ani sëñ bi sant na bu baax ñëw juróom fukki million mbooloo mi nag ba nga joxe ndigal la ñëpp ñëw baatin nag ci tege nag xam naa ne ndax lu bari ñëwaat waaw te xam naa ne kenn du des fenn ñëppay ñëw ah waaw ñëppay ñëw maa ngi leen maa ngi leen maa ngi leen maa ngi ubbi sama dënn rek. am tawfeex da nga ñëw de. ah ku am tawféex ku am tawféex di nga ñëw. jërëjëf jërëjëf Cheikh nag bi may ñëwee. daf ma ni boo demee na nga ma yóbbul sama siyaar. wax na ma ko ba waaw waaye nee na ma bi ma ko dee damay yóbbu damay yóbbu addiya ji daf ma ni boo yeggee. Ah. na ma ko joxal sama siyaar am ah, ma joxel ma joxel ko ko ok. la nga ma waxoon la nga ma waxoon ah. ca ne ni ma da nga maa ne woon jeexalal sa doole takk fa Serigne Cheikh Mbacke loolu laay def ndigal la ma joxoon tubaarkalla ne. ah waaw. jërëjëf sama jotaay bi. Ah. sëñ Saliou ak ah. sëñ Béthio. Ah. ñun ñett. képp loo fàtte mu. lay wax nga dëgg la jërëjëf. ñaan ñu ngi ñaan mu yàgg fi tëwër ñaanalal Serigne Cheikh mu yàgg fi tëwër. rek moom kay fayal ngeen ma ne sëñ Béthio nag bisam ba da day ba sub démb la ba sub suba. te eh, cantam googu ñuy wax 17 avril daa dellu mooy bis ba mu dajeeg Serigne Saliou. mooy te daan ko màggal. danaa ko màggal Madinatu Salaam. jënd naa samay nag ak samay gëlëm. danaa danaa danaa danaa fa danaa fa jàng xasida. waaw wax naa ko sëñ Cheikh ba mu jox ma ci ndigal. waaw waaw. taalibe Sëriñ Tuubaa bi kat nan doon jullit loolu rek lañ ñu digal rek nan yor it jikkoy taalibe jërëjëf nan it jikko yi am ñun ñëpp kenn kenn bëgg jërëjëf nag bàyyi jikko yëpp te yor jikkoy taalibe